di leen tatagal mm, ci ñëw gi fi ñëw di ma seet si hmm. waaw euh, sang bi euh, bu ñu ñëwee nag daanaka euh, tey jii dañu am gan gu màgg junior ndax li waral loolu mooy fi mu bokk dafa baax wax naa ko léegi ndax nag moom itam di sëtu Serigne Touba Mbacke ak Mbusoobe waaye yàlla may ko lool xam-xam boo xamante ne bii moom it day wéy di ci dimbali askan wi euh, sang bi tey bu ñu la bu ñu la xamee ñu ngi la xamee ci wàllu ñaan. ni ma ko waxee léegi rek daanaka euh, mbusoo nga bokk rek boo ñaanee daa war boo ñaanul dafa war waaye euh, ñu xamelaak lu spécial muy jaaro bi te yan façon jaaro nga yore sang sang bi waaw jërëjëf sëñ Xadim loolu moom danañ ci euh, sawar a tontu lool. ndax euh, jaaro bi dafa nekk loo xam ne ñu bari ñu ngi naan jaaro jaaro. Mm-hmm. waaye jaaro yi dafa bëggut bi dafa nekk jaaro boo xam ne euh, du du loo xam loo xam ne dañ ko dañ ko dañ ko tëb tëb jëlee ko. Mm-hmm. dafa nekk loo xam ne dañ ko dañ ko dañ ak loo dañ dañ koo doon. Mm-hmm. muy ñett jaaro la. Euh, benn bi euh, kaaraange la. Hmm. benn bi ubbeeku la benn bayra. waaw. macha allah tawféex gi ñu tawféexeel jaaro yooyu mais bi jaaro bi nga xamante ne bii bayre la. Hmm. ak bi nga xamante ne bii ubbeeku ci laay gën a insisté hmm. ndax fi réew mi toll. jaaro bi nga xamante ne bii ubbeeku la. Euh, boo ko takkee ngir ci ndaw. ci ndaw ndax mën nañ ko takk ndax nag ndaw day ñaare dañu naan ndaw ñu bari fi mu nekk nii ji jamono ji day xaw a metti ci ñoom est-ce que ndaw itam mën na di takk jaara bi wala mag rek ko koy takk. waaw c'est Amadou Bamba waaw ñaar ñaar ñaar ñëpp ko takk. Hmm. ndaw danga ko takk mag danga ko takk. Hmm. waaye balaa balaa ñu lay jox jaaro bi. Hmm. danañ leen defal kaaraange goo xam ne euh, lu ñëw day day day day delluwaat. ndax euh, boo boo amee boo boo am bayra ci amoo kaaraange. Mhm. daanaka amul njëriñ. wallaahi waaw. dañ da faaw dañ leen njëkk defal kaaraange ba noppi doon defal bayra bi. ndeysaan ndax euh, bu ñu leen bu ñu leen defalee bi ci amoo kaara amoo kaaraange. Mhm. tàkk-tàkk boobu rek. Mhm. day jëpp dana jëppee rek daal fayaat. Ah, ah, yooyu yëpp bala nga koo euh, mën a def sang bi yaakaar naa ni faaw ñu def listixaar listixaar wàllu listixaar. ci seet ngay yëngu wala ci xaar ci kurus gi ngay seete ndax dégg naa ni itam yaay borom kurus gi. waaw ah, ñaar ñaar yëpp ñaar yëpp dañ ko seetee. Mm. dañuy des saxaar dañuy seet ci kurus. Mm. te dañuy seet yoon yoon yoon yoon tam dañ ko seet. ndax ndax ki nekk bitim réew wala ki nga xamante ne bi yéen ñaar bokku leen fu nekk mën nga koo seetal sans pour autant muy ñëw si yow. waaw kooka kooka dañuy woo rek. Mm-hmm. bu ñu wooyee. Mm-hmm. Euh, fi ñu toog lañ ko toog seetal ko. wax ko li nga xam ne moo nekk ci moom mm-hmm. bu dee wàllum sarax bu dee wàllum loo xam ne ko war a saraxe mm-hmm. mu saraxe ko bu dee loo xam ci wàllu ci wàllum yaram mm-hmm. ñu wax ko ko ñu wax ko ne ko da ngay def ndàngam loo xam ne li mu bëgg na dana faju macha allah ah, ah, alors mi ngi noonu comme ni ma ko faral di waxee tey jile maa ngi dalal kilifa goo xamante ne bii nag daanaka faraluñu di ñu ko di ko gis lu bëri ndax nag jataay bi sax ñun ñoo ko euh, sàkku moom itam ngir euh, ci mbaax ak ak waaye ku wax mbusoo bi ah sëriñ Atex Bousso li nga yëngu te ñu bëri naw la ci itam muy wàllu këyit ñu bari fonk la ci lool nga am ci ay taalibe ci bitim réew ci àdduna bi yëpp muy wàllu këyit ñi nga xamante ne bi dañoo am ay jafe ci wàllu këyit. waaw ñi nga xam ne ñoo am jafe ci kay wàllum kayit moom maanaam li yomb na moom. Mm. waaw moom boo ñu boo ñu boo ñu woowee. Mm. wax ñi nga xam ne mooy sa jafe-jafe kayit. Mm. mu ne ci wàllum wala dangaa bëgg a tukki wala xam ne si wàllum njàng. wala sa wàllum kayit kayit boo mën boo mën di lijjanti. Mm-hmm. moom boo ñu wooyee um, du yàgg mu mu sotte ko. waaw mu sotte incha Euh, alors bu ñu waxee itam euh, ci leneen loo xamante ne bii mooy ñi nga xamante ne bii dañu euh, taw a am borom kër wala ñeen ñi nga xamante ne bii seen ki ñu bëgg a takk ñaare dëng-dëng day am ci diggante bi ñu koy wax wàllu nopp. Uh-huh. alors sang bi itam mu nekk looy yëngu loo xamante ne bii suñu borom may na la ci lool. waaw ah, bu dee wàllu nopp moom moom moom daanaka lu lu la moom lu yomb lañ koy defal. Hmm. bu ñu bu ñu ko defee ne moom bu dee ki nga xam ne dañoo eh, seen ànd mooy ñi nga xam ne jëkkër jëkkër ba eh, jabar nga mm-hmm. xam dañoo dañoo am jafe-jafe mm-hmm. dañ leen ba mel ba mel ni ba mel ni mburoog soow comme ni mburoog soow defee moom moom lañ ko defee mm-hmm. mm. macha allah waaye itam da nga yëngu ci fay wax. Mm. maanaam eh, ñi nga xamante ne bii dañoo am ay jafe-jafe ba ñu leen naroon a tëj kaso wala wax ji bëri ci biir kër gi loolu itam am na saafara boo amee nga xamante ne bii fay wax rek moo ko tax a jóg. waaw waaw waaw loolu tam loolu tam dañ ci dañ ci dañ ci dañ ci yëngoom mooy fay wax mm-hmm. maanaam suñu borom suñu borom baax nañ ci mm-hmm. euh, euh, am na am nañ ci am nañ ci am nañ ci lu wér loo xam ne moom bu ñu ko defee moom du yàgg sax mm-hmm. nga nga gis firnde bi waaw ndax bu ñu ko defee bu ñu ko defee dañ laan demal bala ngaa bu doon bu doon dañ bu doon police police moo lay police moo lay jël fii <coughs> dañ la ko def na na demal boo àggee boo àggee day mel du yow Mm. Mm. bu ñu ko defee dañu du yow. day mel ni du yow. Mm-hmm. Mm. bu doon bu doon bu doon yaa ko def sax bu ñu ko defee. bu àggee bu àggee dañu naan dañu naan ki ki ki tëppuñ ko dara. ba ci ñiy xëccoo ñi nga xamante ne bii dañuy dañuy xëccoo maa xam moo xam place la wala ay politiciens la ñu ay kilifa la ñu di xëccoo mbir. waaw loolu tamit dañ ci dañ ci yëngu. Mm-hmm. tam suñu borom may nañ ci eh, li koy suñu jot. Mm-hmm. Euh, mu dee da euh, bëgg place xam na kuy xëccoo. wala loo loo xam loo xam daal da nga cee bëgg jot. Hmm. alors boo jëfandikoo ak hmm. li nga bëgg dana dana dana ànd dana ànd. incha allah incha allah rabbi. mbir ngi nii loo xamante ne bii itam lu jar a bàyyi xel muy wàllu cat. Hmm. sang bi cat day sonal ñu bari. waaw loolu tamit moom yàlla yàlla may nañ ci moom. moom cest nit ki dund nit kuy dund ku ne am nga cat. <coughs> dëgg cat moom tamit. Euh, nekkul loo xam tamit euh, luy dañ 100 cent nekk hmm. euh, nekkul loo day dañ 100 pour cent waaye man na yàlla yàlla yàlla baax na ci loo xam ne su ma ko defee su ma la ko defalee. xam hmm. day day dañ day dañ day dañ ba seet wicc hmm. uh-huh. koy dindi ba. cat bi da nga koy dindi ba bari na ñoo ne ñaan cat dañ ko dañ ko kii dañ mënut a dañ 100 waaye moom yàlla may na ma ci loo su ma ko defee moom day dañ day dañ ba seet wicc moom. wàllu seytaane nit ñi dañ koy wax est-ce que loo gëm la. wàllu seytaan wàllu seytaan am na am na kay. Hmm. Hmm. mooy loo xam ne ngelaw ngelaw dala dugg. Hmm. wala loo xam ne euh, ndox moo naan la wala lekk ko lekk lekk lépp ci mbirum se seytaan la. d'accord wàllu wàllu bët bu bon. waaw yooyu yëpp ci yooyu yëpp ci la bokk. mooy yëpp mbirum seytaan la. d'accord. te sang bi da koy da koy dindi ci nu mu gën a gaawee macha allah. alors leneen a ngi nii tam sa particularité la dañ la ko xamee muy wàllu ndoxum siti euh, euh, wàllu ndoxum siti tey boo koy dindi ci nit ki ndax traitement lay doon wala looy dindi jooni jooni lay doon. waaw ah, traitement ndoxum siti traitement moom ndoxum siti moom traitement lay nekk. Hmm. Hmm. ndax euh, ñi nga xam ne yënguñ ci wàllum wàllum sungu fa ren sax. Hmm. mbay mbirum tubaab yeeg médecin yi sax ñoom dañuy dañuy garab lañ la jox garab lañ la jox na la jëlal li jëlal li. ñun nag li ñu def dañ ko dañ ko nekkul loo xam dañ ko tëb rek man ko dañ ko jàng garab gu ne ak fa muy jógee garab gu ne euh, heure buñ ko heure ko dagg ak garab gu ne la nga cay wax mm-hmm. garab si ndoxam siti moom dañ ko dañ koy traité moom moom seet bi ci moom ak fu ndoxum siti bi mën di toll si nit ki nu mu mel di doon d' accord leneen a ngi ci loo xamante ne bii sang bi mën na sonal lool tey nag mi ngi woy sax di sonal askan wi muy wàllu ngóor ñi nga xamante ne bi dañ ci am ay jafe-jafe sañ àtteex ñooñu euh, traitement lay doon sa diggante ñoom wala loo leen di yokk ñu dem. waaw man wàllum ngóor moom mm, li li li yomb mm-hmm. euh, bari na ñoo xam ne moom am na ñoo xam ne dañu ko dañu am na ñoo ne juddwaale mm-hmm. am na ñoo xam ne leen dab. am ñoo xam ne dañoo na ma yàlla jigéen dañoo xam ne dañoo fooy seen ndaw mm-hmm. ba ba ba ba ba ñu amee soxna duñ ci man euh, lu kii dal mm-hmm. lu bari loolu mm, euh, bu dee ku ne ku ne boo boo ñëwee danañ xam danañ xam mm, da nga ko judduwaale wala da ngaa da ngaa fooy seen ndaw wala yooyu wala yooyu demee noonu mm-hmm. danañ xam ni ni ñu koy traité ba ba nga del na comme na nga ko bëggee woon macha allah euh, alors euh, di fàttali ne maa ngi dalal na kilifa gu mag goo xamante ne bii comme ni ma leen ko waxee mbokk yi di sëñ Atikh Bousso euh, sang bi bëggoon naa itam nga lax laabiire ñi nga xamante ne bii dañoo bëgg a jàngi bitim réew wala ñu bëgg a dem liggéeyi bitim réew te saa su nekk bu ñuy déposé ay kayit muy të di am ay gàllankoor wala bi ci réew mi sax bu nuy déposé ngir wut liggéey moo xam ay rab mën na koo def ah ñàkk wërsëg itam mën na koo def lu mu ci mën di doon yaakaar naa ni am ngay ci itam saafara. waaw dëgg la bu dee ci wàllum këyit moom bari na ci nit ñi yàlla yàlla dafa bind te yemalewut mm-hmm. te wuute mm-hmm. ñi eh, cat moo leen sonal ñi àndandoo moo leen sonal mm-hmm. am na ñoo xam ne ay ay ay ay àndandoo moo leen sonal xam ne luñ luñ luñ dugg mu yàqu am ñoo xam ne cat moo leen sonal loolu lépp moom dañu boo boo boo ñu wooyee danañ danañ ko fexe ba moom dindi moom seetlu ci incha allah. Mm-hmm. ñi nga xamante ne bi dañoo bëgg a tukki. Mm. maanaam bëgg a jàng ji bitim réew wala ñenn ñi sax bitim réew lañ ne waaye mënuñoo fexe ba am këyit. Mm. sëriñ bi ki ngay jëflanteel mu nekk bitim réew. Mm. Euh, am problème mu këyit ngir ñibbi si Sénégal est-ce que kooku liggéey bi dina gaaw. waaw liggéey bu gaaw lay doon de. Euh, fii la ñuy toog def ci li ñuy def def ci li def rek. bu ñu ko defee ci li ñu ciy def nañ danañ fexe ba mu dugg fa réew réew nekk wala nga def ko def ko ci ndox ni ni ndox mi doxee dox ba ñëw ba ñëw Sénégal. seede macha allah macha allah. alors loolu nag yaakaar naa ni euh, lu am solo la euh, ci li nga xamante ne bii ñoo ñoo nekk bitim réew mbokk yi nga xamante ne bii ñoo nekk bitim réew bëgg ay wàllu këyit ba ci ñu nekk Sénégal bëgg visa bëgg bëgg tukki comme ni ma ko faralee di waxee léegi daanaka ay caaxaan xaju ci euh, tey it nag lii nga xamante ni bi da ciy yëngu daf lu wér la lu lu wóor ci moom mu ci yàggatee dimbali askan wi waaye ñun itam tey exclusivité la ñu am ñun Setsima TV ngir nga mën a jaaree ci ñun. baaxe askan wi donc loolu itam ñu ngi la ciy gërëm di la ci sant di la wax ne tey jii boo doon tàggatoo ci émission bi sa kàddu gu mujj lan lay doon. waaw ah, di nuyu mbokk yëpp di nii mbokk internet ñëpp ñu seetaan Setsima TV mm. di am mbégte lool ci dalal gi ñu may dalal. Mm. ngir lii may yëngu ngeen di ko fésal. Mm. Eh, yii nag yéen a xam eh, li ngeen bëgg. yàlla na ko suñu borom defal. amiin amiin ak seen Amadou Khadim. amiin amiin amiin amiin yaa rabbil alamin. wa rahmatullahi Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te